laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah ma jël man saa xalim sot ko sëpp ko ci saa daata bindal seexu naa baara tagg ko ma dellooti jël man saa xalim sot ko sëpp ko ci saa daata bindal Seexuna Baara tagg te man bindi way yuy jëm ci sëñ Baara laay sago nde buur yàlla moo def man ma yaakaar ko sopp ko te sopp ko moom sëñ Baara daa war ab julit ndega moom ku noonog moom bu deewee ñu andax yéen du ngeen màggal ki tax mag ñi am ngërëm ci sëñ bamba bis bam fee ñe dunyaata topp andax yéen du ngeen màggal ki tax mag ñi am ngërëm ci sëñ bamba bis bam fee ñe dunyaata topp ko te baara bam feeñee la seex bamba woo ni leen kan gi kat seenu ngërëm mooy ki andi ko takat jëkku loola ibra faalang fa wër di maaj tanaa mag ñi aadoom tey du naaj yàlla def na ko takat jëkku loole ibra faalang fa wër di maaj tanaa mag ñi aadoom tey du naaj yàlla def na ko sëriñ bamba day am gan tagan googa jël na ab ndëggoom teg ci kaw biib jant kaay leen nu seenu ko bi sëñ baara feeñee mag ña lam ca jubluwaan sëriñ baara jar naa fonk fonkal te moytu ko yëpp génnul yàlla mooy mbooti suñ boroom te lim am ci xayrul xalxi kuy noy seenu mbiram yépp génnul yàlla mooy mbooti sun boroom telim am ci xayrul xalq kuy noyi seenu ko te yen bim yenu seex bambanim di sendeem keneen la woon faw gor mbaa diir bu néew yan wa rëccu te yan bim yanu sëñ bamba nim di sendeem keneen la woon faw gor baadir bu neew yan wa rëccu ko kudul bamba lim am xaaj ba xaajaat ba doo am te guuxum ndoxam nandal na dunyaa ba roose ko borom jaam ñi baara bam neex ko def ko ab xarit dellu jël téeréem ba xuraanu may ko ko laa ilaaha illallah.